ci def ab jàngat ci kanam lay doon buñ sa noppee dinañ dalal Aly moom moo jiite élan de la paix woote jàmm ci biir réew mi ci euh, lépp rek ci li xew fan yi ci réew mi léegi dañuy jàll ci xibaar yi ñu yaatal ko ak Cheikh Tidiane Diaw Cheikh Tidiane Diaw ginnaaw ba ma la nuyuwaatee ba noppi xibaar yi dañ koy tàmbalee fële ca Pikine ginnaaw raay moom nag euh, mi ngi jooy ba léegi askan wa seen i doom yi faatu ci manifestation yi. Cheikh Tidiane dafa mel ni sa micro bi dafa fay boo mënee ah. voilà c'est ça. Euh, dëgg la. Euh, naata comme ni ñu ko waxee ñetti ñàkk ci seen yi bakkan ci diirub ñetti fan ci euh, manifestation te kenn amu ci fanweeri at bokk na ci Ibrahima Drago Bassirou Sarr ak Ismaïla Traoré ñoom ñëpp ñàkk ci seeni i te ay bal fetal moom moo leen faat loolu nag naqari seeni i waajur nga xame ni jamono ji ñu ngi koy jooy. Euh, te pour ñu récupérer euh, seen i néew sax problème la ndax mbirum autopsie fële ca hôpitalu Idrissa Pouye bu Grand Yoff dañ ci teewlu reportage yu euh, Pape Farañing Magay Diop ak Abdoulaye Anne. fii ci diwaanu Guinaw Rail Sud sama ndeyjoor fii nag mooy mairie bi yoon bi boo ko duggee di nga dem ci biir Guinaw Rail soo ko wàccee di nga yegg kër ki nga xam ne moom la ñu tuddee Ibrahima Drago gone gi nga xam ne moom la ñu faat fii ci ay sa yaakaar ci ginnaaw raay kon dañuy ànd ak yéen dem fële nga xam ne moo nekk ci biir ginnaaw raay ànd ak kër yi seede yi seen yaay yi seen dëkkandoo yi naqar gi nga xam ne ñoom am nañ ko gannaaw ba ñu faatee ñi nga xam ne ay soutien de famille la ñu woon ñi nga xam ne ñu dëkk fii ci gox bi amal leen njëriñ. daal damaa bëgg ñu bàyyi rey bi ndax tey mu ne ñu amaat taaw taaw kenn mënu kaa juraat mënoo juraat taaw nit amoo lu dul sa taaw. bu ko defee mu jógaat ci lii ndax tey bu doon ku rey ñu rey la dëkk bi kenn du sonn waaye tey xale yëpp boom nañ leen. waaw ah, effectivement moom moo gaañu te trois lañ ko dóor ci lu ñu wax le bi dem moo ko laajee dama ne carrément trois balles la dañ ko door bal ci ginnaaw ak ñaari bal ci tànk ci lu ñu wax xaw ma nam parce que man gisuma ko ba léegi waaw loolu daal lañ ma te évidemment boo xoolee foto yi tamit di nga gis bal bi ñu ko dóor ci ginnaaw parce bi ci dara sax la tëdd. biir ginnaaw raay sud ba léegi ñu ñëw fi nga xam ne moom moo nekk ci watu daral bi ki nga xam ne nag moom moo nekk Basirou Sarr fii nii ngeen gis nii fii la dem liggéey fi mooy atelier am daanaka moom moo fi dem nekk nekk tamit soutien de famille ci loolu la ñuy avancer dem ànd. xool ay xaritam ak i dëkkandoom yaayam ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay nijaayam ak ñooñ ah, lool métti na lool. wàcc ñu oto bi dañoo ñëw rek dóor tërëtërëtërë léegi tëjaat dem affaire bi foor nag xam naa waa koñ bi loolu la ñu dégg nag mais bëgguñu génn quoi ndax xamuñ lan moo xew. la ñun su lañ toogee ñun toog nañ bu ñu tiiree ñëw nañ mais gisuñu kenn après su lañ dugaatee benn gaan ñëw ñëw foofu ne am na seen benn booy bu daanu fee waaw. man dafa wax loolu noonu rek ma xalaat ko quoi parce que man gisoon naa ko muy dem léegi si laa dawee nag ñëw fekk ko fa. gisoo mu tëdd foofu noonu si laa jële sama pile bi muur ko si bopp bi. manifestation da ko doon wax sax dalaa lat sama yoon nekkul ci politicien du politique. ndax yàlla rek lañ doon dund. ndax ñun si yàlla lañu àndee ñun ñëpp. moo tax ñun buñ ko tiimee ba xalaat wax yu mu doon wax rek dañ naan ñun tooñ nañ ñu ba pare rey ñu. ti lool ci man rek waaw ah, boori 5 yooyu daal laa génn ci biti rek. gis xale yëpp def ndiiraan man loo leen di daw ñu ne jam nañ Basiiru ba mu dee ne oy deewul de mu nga hôpital ma ne bu leen ma nax waaye bu ñu waxee ne dee na papam ñëwee benn ma kooku dee na bal ci bopp mu noonu soowee keroog àddina dafa tukki ci man bu hôpital ndax si image yi après gis nañu euh, population bi sax jéem nañ koo rawale yëkkati nañ ko di ko jéem a rawale mais après bi si la sapeur ñëw si lañ ko yóbbu hôpitalu Thiaroye bi si camp bi. man mii di wax a yéen daanaka lu mot 10 ans xaw ma 15 ans yoo xam ne maa moom ñoo bokk benn lal xam ne woon nag euh, koñ ngeen di gis nii yëpp bi setee wala peinture bi ngeen gis moom loolu. que Basirou ñun du suñu xarit mais suñu deret la deret suba guddi bëccëg. buñ liggéeyul ñoo ngi fii toog chaque jour fi lañ toog ñooy teg caañ. mu ngi fi ci koñu ASC Déggoo ci ginnaaw raay boo jegee autoroute à péage bi foofu nag am na kenn ku fa ñàkk bakkanam Ismaïla Traoré lay tiba kenn ci xaritam mu ngi. benn pick-up bu weex la bu weex tàll nii ñu ñëw gis booy toog foofu rek ñu ñëw foofu taxaw rek booy daw ñu wàcc rek dóor. te tara tara tey période wàcc ñu oto bi dañoo ñëw rek dóor tara jërëjëf Pape Fara ñi nga ci reportage euh, boobule ba tey rek euh, ci euh, situation réew mi njiitu réew mi di président Macky Sall moom démb xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachir Mbacké dalal na ko ca diwaan wu sell wa di Touba. Mm, muy tête à ñoom ñaar kottu waxtaan ci diirub waxtu ba ci noonu sax bi 22h jotee ci guddi la njiitu mi door a jógee foofu ca résidence bu xalif général di Mourides ak convoi am information yi ci jot nag dañoo jàpp ni ñu waxtaanee lu ci ëpp bokk na ci jafe-jafe yi nga xamee ni jamono ji réew mi mi ngi koy dund soxna naata mhm, ci consulat bu Sénégal ba nekk ca Milan nag moom ay manifestant ñoom ñëw fa dugg saax-saax yi lépp yàq lu bëri foofu la yàq fa lu bari consul bi nga xamee ni mi ngi wuyoo Mamadou Lamine Diouf sax ci ci Sénégal la ko yëf yi fekkoon loolu tax ba nee na dina dellu foofu ngir jéem a constater dégâts yi euh, yóbbu ci yoon ñi nga xamee ni lañ jàpp ni ñoom ñoo def jëf joojule ñu teewlu ci reportage Mamadou Fall ak Mardien ñëw Sénégal ngir ay congé yu mu jël consul bu Sénégal ci Italie mujj rek kon dog li nga xam te ni moo di vacance am delluwaat foofe ngir saytu la xew ca ambassade ba ay manifestant yu Sénégal kon ñoo fa dem yàq lépp foofee ca consulat ñoom dañu jaar ci gannaaw euh, yàq bunt bi euh, dugg ci biir bureau bi ñu njëkk a janool mooy bureau état civil fi nga xam ne lépp luy dem ci mbirum juddu mbirum mariage mbirum décès mbirum euh, transcription lépp foofu lañ koy defee ñu saccagé ko yàq bagages yi tuur ko ci suuf archive yëpp ñu jaxase ko daji machine yi biñ fa jógee dañu continuer dem bureau carte d'identité fekk kooku aussi di liggéey ñu jaxase carte d'identité yëpp doora nag jël escalier yi dem au troisième bi ñu demee au troisième aussi. ils ont trouvé le bureau bi nga xam ne moom la ñuy defaree carte d'identité la ñuy defaree passeport ñu tëj ko ñu jël extincteur bi dóor ko ci bunt bi mu daajeeku ñu dugg ci biir bi ñu duggee ci biir lan la ñu def mooy yàq machine bi nga xam ne moom mooy valider passeport yi pour nit ñi mun co jot loolu nag ma koy ñaawlu. lii nekk lu mu jur rek moo di sénégalais yi nekkee foofu ci Italie Milan boo moytul dañu toog ay bés yoo xamante ni du ñu am consulat. am solo nag mooy documents yi ñoom ñoo koy soxla du keneen du keneen seen doom yaa fa nekk li ma ci gën a ñaawlu ci ëpp rek mooy dese parce que tey ñu ngi déglu suñuy kilifa lu ñu wax rek loolu la ñuy def mais jàpp naa ne fi ak weer consulat ba lañ fa yàq mënuñoo liggéey et suñ tëjee consulat bi pendant un mois au minimum je pense que ñoom impacté yi mooy ñoom loolu yëpp mënoon na ñàkk parce que Sénégal ñun ñoo ko bokk Sénégal kenn mënu koo xar ñaar quel que soit alpha ñun ñooy ànd parce que Sénégal nag ñun yi tey ñoo ko tabax tey door a ñëw. bi yokku ci nii mbooleem manifestant yi daañu leen identifier ba noppi ab daa ñu ko déposer. tey war nañu yoon may nañu ko dinañu ko def parce que on a les images li ci war yëpp def nañu ko et lépp loo xam ne yoon may nañu ko ak la police italienne ak ñi nga xam ne même la police sénégalaise incha allahu rabi dinañ ko def. ni ko kon yenn ci région yu Sénégal yi defee woon Sénégal yenn Milan ñoom i tamit dañoo manifester seenu mer daal di yàq li nga xam ni moo di consulat bi yooyu lay jëf nag. ki nga xam te ni moo di consul bi jàppee ko yëfu vandalisme. man mi fii ci Ndakaaru nag waaye 24 ñoom dañoo fas yéene euh, amal euh, marche marche pacifique nag lañ ko tuddee 9 euh, ak 10 juin bi ñu dëkkmal liñ ci jublu nag mooy woote jàmm ak i tamit ñaax njiitu réew mi mu teg ci suuf troisième mandat dañuy teewlu kenn ci ñoom di coordonnateur bi Mouhamadou Mbodj ci micro Aminata Mbare Sow warul am troisième mandat woon ko ne li xew ci réew mi muy jéeye bi fi am muy nit ñu bari ñu dee muy euh, ñi ñu jàpp mooy ñu yàqal lépp mooma ndaxte lépp ci moom la jóge moom lañu dënk réew mi moom moo def ay jëfin yoo xam ne tegewul amul jaarul yoon impunité mi nga bu mu jox ñi nga xam ne ñoom ñoom far moom ak euh, sanction négative yi mu joxe ñeneen ñi loolu mooy excès bi loolu moo tax ni ñi di fipp te foo xam ne nag euh, am na dóore ak ah, feyoo nga fa donc nit ñi dañuy fayu muy dóoree ñi di fayu te loolu du dëgg yoon. société civile ñi nga xam ne ñoom dañoo dajaloo ci ab kuréel tuddee ko SOS Paix euh, ñoom nee nañu daal dinañu euh, dem dajeek njiitu réew mi euh, fexe tamit nu ñuy dajeek Ousmane Sonko ngir rek xool naka la ñuy noué maanaam dialogue ci diggante ñoom ñaar ba jàmm mën dellu ci ci Sénégal démb lañu ko fësal ci janoo bi ñu doon amal ak taskatu xibaar yi ñu teewlu ci Alassane Ba ak Ahmadou Ba. société civile fas yéenewul toog di seetaan li nga xamante ni moom la réew mi di nekk di dund ba tax na ñu taxawal p muy synergie des organisations de la société civile fas yéene yëkkati kàddoom ñaawlu njëkk violence yi nga xamante ni am na fi waaye itam ñi nga xamante ni jot nañu ñàkk seen bakkan ñuy sàkku dal dellu ci ci réew mi. ñi ngi naqarlu bu baax yi nga xam ni yàq nañ ko bien public yi ak bërëb yi nga xam ni ay personnes privées ñoo ko moom ñi ngi ñaan ñi nga xam ni yépp ñoo nekk ci biir situation bi maanaam gouvernement bi ak opposition bi ñu taxaw jël seeni responsabilité SOSP gërëm taxawaayu leader religieux yi ci message jàmm yi nga xamante ni jot nañ ko yëkkati ñuy lancer appel président Macky Sall. ngi invité di ñaan chef de l'État comme ni mu jëlee initiative dialogue national bi mu def déclaration boo xam ne dina dalal xelu population yi dalal xelu askan wi. ñu ngi ñaan gouvernement bi mu def lépp lu mu mën kéemtulaay kàttanam ngir dellu si waat ordre ak sécurité ñu respecté ak ak yéleefu doomu aadama les droits de l'homme ñoom acteurs yi fare ci société civile sàkku itam ñu fexe ba wàññi askan wi nga xamante ni ñu ngi ci biir kaso yi. te ñu ci bëri nekk ay xale ñu man leen a bàyyi ñu génn. ñu sàkku itam ñu delloo siwaat li nga xamante ni moom mooy internet société civile woote dialogue bi nga xamante ni waxtaan la bi dox diggante président Macky ak moom njiitalu Pastef di Ousmane Sonko. lu jeexale ko ak euh, dialogue euh, national bi ak euh, commission yi nga xamee ni loolu nañ ko ba pare daanaka yëfa amoon lu ñu reconduiraat général Mamadou Niang mi nga xamee ni moo ko jiite woon génn àdduna kii di professeur Babacar Kanté comme premier vice président moom moom moo ko fa wutu partie prenante yi nag ñoom ñu ngi leen di ñax ñu yónnee seeni idée ak proposition ca coordination bu dialogue ngir rek ñu xool nañu naka lañu ñu koy. dajale ba taxawal terme de référence yi nga xamee ni euh, juróon na coow lool laata dialogue bi di tàmbali soxna naat jërëjëf Cheikh Tidiane Diawo ci euh, euh, réew mi en général dinañ ci waxtaanaat ci kanam ci ne mu gën a yaatoo ak Alioune Ndiaye fas yéene def jàngat bi waaye tamit ak sunu gan di Alé Lo jiite élan de la paix woote jàmm ci biir réew mi léegi ñu jàll